xanaa di wax ne li ñu indi woon fi tey mooy di voter ay convention ñeenti convention yi nga xam ni Sénégal moo ko sëq ak réew yu nekk bitim réew benn bi ak Mauritanie la benn bi ak Émirats arabes unis kooku nag ay convention ci wàllum justice la parce que xam ngeen ni sénégalais yi fu ne la ñuy dund Mauritanie bare nañ fa Émirats ñu ngi fay bëgg a bëree ay dubaay ak yooyu donc baax na fépp fu ñu dem rek état bi seet naka na leen di jàppale ba ba ñuy def seen i affaire bu ñu def seen i commerce ñu ban leen mën ci ay sart loolu mooy convention yi yeneen ñaari convention yi benn bi mbirum accident de la circulation la naka lañ koy moytoo nuñ koy def ba vraiment accident yi wàññeeku beneen bi ci mbirum statistique statistique rek mooy di wàññi di wàññi nit ñi di wàññi koom-koom bi di wàññi jàngalekat yi di wàññi lu ne loolu dafa am solo ci réew parce que boo wàññee ba nga am say données ci ngay mën a doxal tracer say politique mais nag gis ngeen débat bi weesu na foofu dem na ci mbirum Sénégal dem na ci mbirum sénégalais ñu ñaaw lu nag bu baax a baax li xew bitim réew Séné euh, consulat yi nuñ ko caxar caxarte yàq ko toj machine bi defar passeport toj machine bi defar carte nationale d'identité xotti ay archives nga xam ni seen kayitu juddu Sénégal ñoo nekk foofu xotti ay dossiers yi nga xam ni ñi doon bindu di bëgg a wote ñoo nekk foofu waaw loolu bu ñu defee yàq-yàq boobu yaakaar naa bu ñu àggee ba fii assemblée dina ma ay député balaa ñu may naan tëj nga consulat yi yu ñaawlu loolu ba pare naam sax am na ñu bëri ñu ko ñaawlu mais ñu ko ñaawluwul dama leen ne yéen balaa ngeen di wax ubbil consulat da ngeen war a war a wax ji ba pare moo tax ma ne leen jàmm am na lu ko sut xam nga jàmm dañu naan dara sutu ko ah kay am na lu sut jàmm dëgg moo sut jàmm ko waxul dëgg mënoo dox jàmm donc buggoon naa dëgg bi jib fii ba pare bu jibee ba pare nag ñu doxal jàmm bi doxal masla bi noonu la mbir mi demee wax waaw Guinée yi man loolu dégg naa ko naam sax dama ci gëstuwul mais li ma mën a wax rek te loolu dama ko waxee en tant qu'avocat amul kenn ku am sañ-sañ nga toog ci réew. di def naka su dul noonu ba pare nga ne yoon du am ci yow wàll yoon dina am ci yow wàll dëggam doomu Sénégal bu nekk biir dëkkam def ko yoon am ci moom wàll astamaak koo xam ni dañ laa dañ laa dalal te nag du mbirum Guinée ak Sénégal Guinée ak Sénégal ñoo ngi wéyal seen relation yu baax ak seen àndandoo bu baax man mi wax ak yéen ministre affaires étrangères Guinée bi sama càmmiñ la dañuy waxtaan bu mbir amee daf may woo téléphone diis ma ko man su mbir amee ma jël sama téléphone diis ko ko te ñu réglé ko donc mbir mi du mbirum Guinée du mbirum Sénégal mbirum nit bu def naka sudul noonu kooku nag ku ko mënti def muy sénégalais muy keneen yoon day am si yow wala lool rek la wasalaam non.